nga bëgg a toog rek ci sa salon wala toog naan dama koy laaj dama koy xaar mais am na foo ko teg parce que boo ko teguloon fenn ci ñu may la ko boo fekkonte ni danga ko soxlawuloo ko pour ñu may la ko mais au moins di nga am benn di nga ko xeex. di nga ko xeex di nga am beneen anam boo ko boo ko jotee bu dul naan non lii ak lii ak lii ak toog di xaar. Pape waaw xam nga xeex façon yu bari la mosuñu jóg ci xeex bu dee xeex la lu ñu mën la bu dee xeex rek lu lu ñu xam la xeex dafa bari façon. parce que doole jaa ngi fi ba tey non attends xeex aussi doole. waaw da defe defee ne xeex doole rek la. waaw mais xam nga xeex xeex mu ngi ci ay façon yu bari bari bari bari doole xel la aussi parce que xeex moo ñu may tey ñun ñi nga xam ne dañu doon saaga ak dañu wax lu nekk ñëpp dellu si wàññeeku gannaaw jubluñu intelligence su combat politique la moo ko indi li tax ñi ñëw di seet ci Abdoulaye Wade di ko laaj ay conseil ne ko nangam ak nangam loo ci xam loolu la li tax ñi ko doon ñi ko contrôle ñëpp bu ñu génnee ci Macky Sall wala ñu mer ci moom lañuy ñuy jublu combat intelligent la loolu nag dafa am fu mu yem dina dem ba nga xam ne adduna bi yëpp dañuy xam ne ni ñii xaar na xam nga nit bu toogee ba xaar ba xaar ba xaar ba xaar ba ñëpp xam ne li mu waroon xaar xaar na te ki mu waxoon am nu mu def bu dara jubee da nga koy xam loolu toujours àdduna bi wane ko dans les partout ci àdduna bi ba ci li nga xam ne sax moo xaw suñu sous région bi wala moo xew fan yi Sénégal nit ñi dañ dem ba sës dos au mur dos au mur nag léegi li ci des mooy mënatoo reculer avance rek ngay avance da ngay avancé loo ci am jël. Mhm. Euh, su ma la déggee mooy euh, xam nga xeex bi ma lay wax mais da ngeen pareegul ci loolu. da nekk ci beneen beneen. non Pape xam nga ne man man man nag attention du ma yoruma petaaw de <laughs> du petaaw kat il faut nga wax ma mais xeex bi nga xeex bi nga xam ni xeex bi ñu xamoon ak PDS. waaw mais xeex bi xam nga pour la résultat yi ñu am nii est-ce que yow jàppaloo ne yow ñu bari ci àdduna bi man du ma la yow mais nangu nañu ne ñun dañu tooñ adduna bi nangu nañ ko Macky Sall sax nangu na ko à mi ba wax ko ci France 24. dégguma ko. ah nee man dégguma ko. nee na situation bi maye ko mu def ko mais après les élections dina ko am amnistie moom am amnistie la tudd. waaw ah. wax na ko la waxu ko. amnistie waaw waxu ko. amnistie waaw très bien. waxul révision de. non déggu li ma la. ma ne mhm. moom fa déggu li ma la mooy jafe-jafeem xam nga jafe-jafe mooy set ban yoon ngay aw. xam nga ban yoon ngay aw amuloo ko am na yoon mais am na yoon boo xam ne buuloo ko da nga defee da ngay faible. d'accord. mais mu ngi si umutu yoonam donc loolu moo ko donc loolu ñun ñu ngi xaar mhm. ne parti di xaar d'accord dina am bés dinañ taxaw d'accord euh, amnistie boobu nga wax mënul nekk seen plan B pour plan B kan PDS non non vraiment Pape bu ñu laaj loolu ñu laajul. damay mais man may laaj man. damay ndax mënul a nekk man kay laaj damay laaj rek ah, Pape waaw dama la expliqué. waaw waaw ñun mhm. ñun dañuy am dañuy am xaru tabaski mu rëy boo am béjjën laadum bu baax bu foor nga bëgg ñu jox béy bu ndaw. li ñu am moo ëpp loolu. pourtant dana tabaski de béy. non oui mais du béy du tabaski. tant boo amul xar amul xar waaw. waaw ah, mais ñun am nañu xar. loolu tax ma wax la loolu. boo ah, amul xar comme ñun amul loolu la dafa naan comme am nañu xar. communauté internationale bi wax nañ ne dañ leen tooñ. dellu leen gannaaw xar mi animaux may mu tuuti rek mi animaux. mooy loolu le droit international le groupe de travail la CEDEAO le comité de travail des droits de l'homme la communauté internationale loolu la ñu wax. loolu doy na loolu kenn du ko am duut leneen moom nag moo xam ne moom ak cëggal guyam à défaut am na si bëggu leen déggu li ma la wax li ñuy laaj jiitu na loolu li ñuy laaj yoon moo ko teg xam nga ñun dañ ne nañ ñu def li ñu yoon jox mais àdduna bi mais gënul dara gënul yomb loolu pap dañuy diggaale man na yow jox ma li ma yoon jox bu ma may mais pap man ma jox li ma yoon wax ñaan naa la li ma yoon may yow bu ma may mais li ma yoon may man bu ma ko xañ d'accord loolu rek la jeex na loolu kon ci xeex bi aussi moo leen génne ci dialogue yi euh, xeet la ci ci xeex bi non de dialogue bi demeewul noonu xam nga Pape il faut ñu respecter aussi euh, chronologie de faits dialogue laa la wax ne bu fekkee ne am na Sénégal wala ñu di ko tudd dañuy jàpp ne ci deretu PDS la nekk dialogue bu dul dialogue dialogue nañ ko ci réew mi président man dialogue bi lay wax waaw même waaw dafa nànk rek il faut nga xam ko lan moo ko waral. xam nga Pape am na loo xam ne bu ko nit di def bés bu nekk saa yu xew mu def ko jikkoom la wala aadaam la du dëgg suñu aada la dialogue dafa nekk suñu aada tëj nañu ba at Sénégal yëpp xam tëj ñu ñu dialogue dialogue nañu dugg ci na ma génn ci dialogue duggaat ci gouvernement génn ci ci bëccëg lañ koy def. donc dialogue bi bu yàgg la ñuy wax ne d'accord nañu ci dialogue benn mois de mais mai 2019 la ñu wax ne jaloog national bi ñuy wootee pour ñu dem ci dafa am ñetti affaire wala ñeent ñu war a def lañ fay def buñ ci paree nañ koy def parce que dafa am ñaari dialogue yu rëy yu fay am te lañ fa génne amatul njariñ dañ ko sànni ñaar Aliou Nguy Ndiaye du ko jiite ñett dañuy libere Khalifa Sall ñeent dañuy gë seetaat procès Karim Wade ñeent yooyu lañu tegoon ba ci communiqué bi nga xam ne génne nañ ko génne nañ ko bi nga xamee ne bi ñoom ñaar daje nañu évoqué nañ fa ay problème ñuy war a la ci dialogue nationale mais mais Pape dialogue national boo koy defee nii ba tënk ko da koy wax. ah da nga defee ne PDS dafa war a nekk benn parti boo xam ne rek dañu war a yónni Moussa Ndiaye wala kii Zakaria Dieye wala kenn mu ñëw woon nañ la ci yow waaw dafa nang dama lay wax dama wax dañu koy wax mhm. man invité nañ ma ci waaw mais yaa ma ko jëkk yëg ci mbedd laa ko fore est-ce que loolu sérieux na dama koy jàpp comme li xewoon ci la commission nationale de révision des institutions Macky Sall ko commandé. fay ci 700 millions dolli leen xaalis. précisément lan moo leen ci génne précisément. dafa ndànk rek. Mhm. dafa ndànk wax li ma ci génne. génne ko anam nu mu mujjee tànn laa ci li ma neexaan jël naa ko li ci des nangam kii ñëw ne leen li leen laaj da ngeen da ngeen dem ëpp est-ce que man mën naa dund assise nationale dund loolu après nit toog rek ma romb benn jour ñu ne ma grand yëg nga ñu ne téye convoqué au conseil au dialogue national mais Pape man kenn du ma woowee noonu bi nga may woo sànq bi nga may woo. est-ce que da moo ma yónnee nit du yamoo ma ne ñu tënk ne dinaa ñëw ma ne lu ñuy waxtaanee nga ne ma nangam nangam est-ce que génne naa ci dara mais sol nga sa costume ñëw ma sañse ñëw ñu toog di waxtaan noonu dañuy dialogué di mais kaay rek nga ñëw dafa am ñu yàkkamti woon dem mais loolu man yëkkatiwuma. Mm-hmm. d'abord c'est d'abord c'est mon manque de respect. mais déedéet mais euh, da nga amoon sa ay pré sa ay préalable. waaw dañ ko jëlul en compte da non encore une fois loolu pa passé nañu loolu dama ne bi dara jatul pour dialogue daf may woo ne ma dama la soxla. d'accord FNR. waaw benn FNR lu leen fa génn. waaw muy benn waaw d'accord d'accord naa ñu demaat ci beneen bu ngeen génn. beneen bu ñu front bi front front national bu boobu lu leen ci génne. waaw déggoo front national FRN bi ne ñu ne ñoom ñoo yónnee ay tur ñu tànn ci ñoom dañu yónnee nee nañ vingt personnes ñu tànn ci ki yónnee vingt personnes ku ko sant. pourquoi mu bind Moussa Ndiaye te bu te te bu te du bindu Ngoné Thioune waaw mais oui amul ci droit. amul amul yéen a ngi affaire bi de. non du question dangal principe la ñu wax xam nga principe pas principe la nit bu amul principe du sotti pourquoi ñooñu pourquoi mu tànnal ñu. lan moo tax moom mu war a tànn tànn keneen te tànnul ñeneen. ña ñu tànnaale ñoo leen naxari. non non man yëgu ne tànn nañu nit. yëguma loolu dama ne man nañ ma yëgal buñ ko di ci tànn nit ku ñu tànn si ñoom ñu tànnal leen ku ñu tànnal baax na mais man nañ ma bàyyi ma tànnal sama bopp nañu bàyyi sama parti tànnal boppam nañu yëgal sama kilifa ne ko dañuy def nangam ndax soxla naa diw bu ma président d' Ablaye euh, président de la République soxla woon woo président Ablaye ne dama soxla Doudou Wade mhm. mu wax ma ko ngoonte président Abdoulaye bu may wax bu may wax jógal dem. maa ngi maa ngi maa ngi sole sama daal. léegi ci ci seen communiqué dafa mel ni da ngeen ci junjune ci biir opposition bi ak ñi bokk ci front bi daf ci am ñoo xam ne dañuy xaw a jege Macky Sall. non xam nga ci communiqué bi ngeen ci bi ngeen ko bi ngeen di bi ngeen ciy génn. waaw mais loolu loolu moo tax ñu génn xool génnuñu ci gé démissionné wuñ de dañuy suspendre suñu activité xool te loolu mu ngi feeñ ñu ngi koy wax ñoom. gisoo gars yi titre ne y a des gens yoo xam ne dañuy préparer pour dugg dans un gouvernement te loolu wax ñu ko ñu ko wax du ay politique les observateurs de la société civile ñoo ko wax. mais mais loolu loolu loolu loolu kay. non non non euh, président. Euh, xam nga non xam nga aussi non man xam nga lan laa bëggoon. non parti bu toll comme PDS. su demee bay wax lu mel noonu am na fu mu ko war a teg. mais am na fu ñu koy mais mën nañ la ko bañ a wax pour le moment. bi ñu ko laata wax ni diw diw la ñu ngi koy wax ñoom ñu ngi koy wax ci biti dig ko dans la presse ce journal na ko joxe na tur. joxe na ay nit yu war a dem foofu wax nañ ko yàggul loolu journal si société bi nga bokk bind nañ ko donc ñun waxaguñu am na ñuy wax te dañ ko waxaat jeex na mais accusation yu toll noonu mais Pape du accusation bàyyi ah, loolu ma ne xam nga kat moo président xam nga loolu accusation la Pape du accusation la jërul wax ah, ah, kay non amul yaa ko bëgg def accusation Pape jarul dëgëral jaru ko amul dëgëral du accusation bu ñu dee accusation daan diw ku ñëwee wax ak président de la République wax ko ne diw wax nga wax keneen man man na la gëw ma waxu président de la République léegi président Macky Sall li wax gëw ma ko am na keneen ku ko gëm ma wax la loolu. moo demoon jeex mais est-ce que bu amee kuy diilee ak Macky Sall est-ce que du yéen PDS yéen a ci gën a jege parce que yéen la ñu gis seen seen seen seen seen leader dem gise ak moom ñaar yoon. xam nga xam nga euh, Pape. waaw. leader bu gisee ak Macky Sall bëccëg. waaw takkusaan. ak tabaski bu ñu weddi ak tabaski bu ñu weddi. Euh, ban tabaski. tabaski bii paase. wax nañu ko bii paase wala bële paase. tabaski euh, président. tabaski bu ñu weddi boole ko ci. loolu ñun ñoo ko wax. non damay laaj xam nga damay man di ma lay waxoon naa la dama leen dem nañu ñaari yoon yow da nga ma bëgg a indil ñetteel. waaw dama la bëgg a indil ñetteel il faut nga wax kan moo ko wax. Cheikh Seck ko wax. ci cadre la bokkoon kuy Cheikh Seck. man Cheikh Seck. mais xamuloo Cheikh bi bu bokkoon ak yéen parti te léegi mu mu bokk ci mooy kan nga may wax da nga ko xamul. waaw damay laaj xam dama fàtte ma demoon na sax Cheikh Yérim ngay wax kan ngay wax. attends seen ah, nekkoon. foofu nga toll fàtte waaw c'est vrai fàtte ko. président waaw ah. je te dis honnêtement dama defoon ne Cheikh Yérim ngay wax parce que Cheikh laa mujj moo mu dégg mu wax ci fàtte woon naa kooku. moo tax il faut ñu il faut ñu réactualiser suñu waxtaan parce que dañu bëgg a dem ci préhistoire je te dis honnêtement dama defoon ngay wax parce que Cheikh Yérim wax na ci ci benn émission à la 7TV moo tontu ko ci 7TV mu ne am na ma ne ko amul mu ne xam naa ci dara ma ne ko c'est faux du dëgg parce que li ngay wax maa la gën a xam fa la arrêté xam nga loolu mën na parce que sori woon naa émission dama fa toogul. ma man maa ko ne dëgg. donc léegi mhm. da ma naan diw. man li ma wax dama leen wax naa la diw kay ñun ñun ma ne ñun dem nañ fa bëccëg dem nañ fa guddi. Mhm. xam nga kuy dem bëccëg tisbaar ak njolloor xam nga problème mooy lan ñii ne bu guddi bu fekkee ne am na mais ñu ne loolu moo tax ñu réculer xaar ba. weer euh, mais président da ngeen di reculer ci dara lu leen wóorul. pas pas vraiment c'est je ne pense pas que mu intéressant ñi lii ñuy wax nii pour man euh, xëy na dina intéresser auditeurs yi mais man mi nga xam ne man maa ñëw pour wax euh, def nañ ko defuñu ko ma li ma xam nañ yem ci li ma def ak li ma wax mais ki li keneen wax da nga koy wow fii nga laaj ko ko. dangay wow woo Macky Sall ne ko est-ce que est-ce que est-ce que dem nga tabaski kër Ablaye Wade wax ko mu yónneel nit Macky yónneel kenn Papa Ngañ mu éclaircir loolu wax bi jeex Papa.